jàng izaa jaa nasrullahi benn yoon jàng xul huwallaahu ahad fanweeri yoon ak juróom maanaam 35 fois des nangu julleem ak kooram te lépp lu mu mës def ci ay ñaawteef des na ko ko soppil ay yiw te mel na ni it ku leel mboolem xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yépp mbokk yi ku ci bëgg yeneen ni leeral dangay dellu ci xurratu ayni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page 146 147 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi